noo sante yalla di julli ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yalla mu dolli ko xewal ak mucc moom ak njabotam ak sahabaam ak kep ku jaar ci aw yoonam baad ne tukki bokki li di woyof dafa bokk ci jikko yu rafet yi yalla xemem lo ay jaamam soññu len ci dik ñi ko wo itam fay gu maga mag waaye itam mu moytuloo leen ab safaanam te mooy rëy mu tëkku itam ñi ko jikkoo tëkku leen mujj goo xam ne gu doy war la yonente bi nag salallahu alayhi waalihi wa sallam mi ngi nuyu woon ngëneelul woyof dina woon itam pay gi nga xam ne ñi woyof danañ ko amee ëllëg waaye dinañ woo it nag mujjug ñiy rëy bu ëllëgee loolu wax na ci xadis yu bari yoo xam ne bokk na ci fi muy waxe ne képp ku woyofal boppam ngir yàlla yàlla da ko yëkkati bokk na ci it li muy wax te yàlla moo ko ko wax mu di ko jottali yàlla wax ne rëy ak màggaay sama mbir la dafa mel na daal sama col la rëy ak màggaay sama col la ku ci xë ci xëccoog man lenn ci ñoom ñaar danaa ko sànni sawara danaa ko tabal sawara kon sama yëf la kenn waru kenn waru koo xëccoog man yonent bi itam bokk na ci li muy fi muy leerale loolu bis day wax ak saxaaba yi ne leen ndax bëgg ngeen ma wax leen ñan ñooy waa àjjana ne leen képp ku woyof woyofal boppam te lu mu ñaan yàlla yàlla fekk ko ca ñooñee ñooy waa àjjana xanaa bëggu leen ma wax leen waa sawara mooy képp ku rëy ñi rëy ñooy waa sawara bokk na ci li mu wax ne koo xam ne lu tuut tuut tuut ci rëy mi ngi ci moom du tàbbi àjjana ku faatuwaale lu tuut tuut tuut ci rëy du tàbbi àjjana loolu lépp kon mi ngi ci yoone woyof lan lay jural ki ko def bu ëllëgee ci aw yiw ak it safaan ba te mooy lan lay yóbbee ki ko def bu ëllëgee bokk na ci rëy nag bokk yi feeñ bëgg a ak bëgg jiite loolu ci ak ré lay dugg moo xam bëgg a jiite la ci mbiri àddina wala mbiri àllaaxira ci misaal koo xam ne daayira bu mbokk day bëgg a jiite day bëgg bokk ci ko da koy bëgg a jiite mbaa mbokk ci ñu ko jiite koo xam ne day xëccoo kon jiit ci daayira ak lu ko nuru wala sax muy xëccoo sax lu mel ne nodd xam na ñu koy def wala muy xëccoo sax lu mel ne jiite mooy élimaan am na ñu koy def yooyu yëpp ci agré rek lay dugg ak lépp lu nuru loolu koo xam ne daal jàpp na ne fu nit ñi dajee rek dafa war a fés wala dafa war a jiite loolu ci agré la bokk yonente bi nag xam le na agré wax ne mooy lànk dëgg lànk dëgg ak xeeb nit ñi noonu la firee agré noonu mu ko firee nag ci la ñuy xamee ne kon safaan ba mooy ak woyof kon mooy koo xam ne day nangu dëgg fukk ak ci kum mën di jóge fu dëgg jóge rek mu nangu ko bu juumee itam nangu ne juum na ba tey ci lim xamle ak rëy tan man cee xame itam ak ak ak woyof ci la ñuy xamee ne am na lu ñenn ñi jàppe ak rëy te fekk du rëy lu mel ne koo xam ne daa bëgg di set ak cet bëggu cet du ak rëy bëgg ak nosu du ak rëy bëgg ab taar du ak rëy ndax yonente bi salaa mas naa wax lii mu waxoon nii ne ku ak rëy ne ci moom lu mu tur tur du tàbbi àjjana bi mu ko waxee am ci ñu teew ku ne ko ah waaw koo xam ne dafa bëgg di sol lu rafet bëgg mbubbam di rafet tàllam di rafet bëgg ko wax ne ndax ndax loolu ci rëy la bokk mu ne ko loolu du rëy loolu ab taar la te yàlla ci boppam dafa taaru te bëgg ab taar waaye rëy mooy bañ dëgg ak xeeb nit ñi danañ ci xamee itam ba tey loolu ñenn ñi dañuy bëgg a wane ak woyof la te ak woyof lu mel ne sol yére yu xar te mën a am yeneen walla yére yu tilim te mën a am yeneen walla sax am na ñoo xam ne sax ay wax ay wax yu yu yu safaanu sax ay saaga wala xeet yu mel noonu sax am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne ci woyof la bokk buñ koy def wala ñu nangu ñu def leen ko bokku ci ak ak woyof saaga bokku ci nangu ko la saaga bokku ci wala di sàkku sax ñu saaga la am na ñu koy def <laughs> waaye yooyu dañ cee dugal lu ci bokkul rëy moom ni ko yente bi waxee rek mooy xeeb nit ñi ak bañ dëgg woyof na mooy safaan ba mooy nangu dëgg fu mën di jógee te bañ a jàppe ne yaa ne ci kaw kenn loolu mooy ak woyof yaa noonu yàlla defal loolu musal na ci rëy defal nu yiw àddina ak alaaxira musal nu ci sawara sàmmoon na sunu ngëm ubbul nu bunt yu yëpp soob nu ci njub mottali nu sunuy mébét yëpp te may nu fan gudd ak wér ak mujj bu rafet